après la la mise en mandat de dépôt de Ousmane Sonko. man mi en tant que euh, membre du bureau positif j'étais désigné parmi ceux qui devaient représenter Pastef dans cette conférence de presse. bi may préparé day la ko woon ni ma noo barricade bi ce qui dit que. ce n'est même plus Pastef. mais képp koo xam ni am na looy wax en faveur de Ousmane ou de Pastef on te laissera pas parler. léegi ma bëgg laaj Sénégalais yi. ñoom à travers ça qu'est-ce qu'ils veulent. Mm. Ils veulent nous pousser vers quoi Ce qui me rapproche à certaines choses qui se passent aujourd'hui mm. et qu'on est prêt à nous coller. Mm-hmm. Parce que l'on il mm-hmm. suffit que, que l'on se révolte, que l'on dise que bon, assez, c'est que l'on se révolte pour que mm-hmm. l'on nous, ñoom ñu créé ay affaire ba pare sànni ko suñu kaw. mais il faudrait que Sénégal xam ni dëgg-dëgg ñuy muñ nag. ça ne nous fait pas mal ça nous fait marrer. parce que ñun li ñu def xam nañ ko. nous nous protégeons le peuple. nous luttons pour l'avenir du peuple. nous aimons cette jeunesse. nous aimons notre pays. looloo tax ñuy sonn di rey suñu bopp. mais affaire terrorisme ak affaire yi newu ci. ñoom nag li tax bëgguñu ñun ñu jël pouvoir yi ñoom ñoo ko xam. d'accord mais aussi euh, li ñuy wax ci li nga xamante ne mooy ba tey Pastef euh, parce que tey yéen da doon toog ngeen ne. amoo leen plan B amoo leen plan Z benn plan dong moom ngeen am mm-hmm. te moom mooy njiital Pastef mais euh, ku nekk xam na ne moom jamono ji caabi da koo féetee ginnaaw mm-hmm. est-ce que Pastef tey pare na ut beneen candidat teg ko bu bokkut ak Ousmane Sonko bon à travers cette expression la mm -hmm. je à toute la presse sénégalaise na mm-hmm. nag bàyyiwoo kenn bàyyiwuma kenn arrêtez de parler d'un autre candidat d'un plan Y ou X il n'y en a pas nous n'avons c'est le président Ousmane Sonko porteur du euh, porteur du projet. aujourd'hui à raison tey la Ousmane gën a mën a nekk candidat sax après la condamnation de deux ans. pour l'affaire Adji Sarr. de millions. il était difficile pour lui d'être un candidat. mais je dis difficile mais pas impossible. aujourd'hui la contumace est levée. il n'y a aucune condamnation. pour cette mise en mandat de dépôt. Mhm. ce jugement-là mënuñu ko def avant 2024. donc en quoi euh, même s'il devait rester en prison ce que nous n'accepterons pas mm -hmm. je le dis tout de suite nous mhm. ferons tout pour qu'il sorte mhm. mais même s'il devait rester en prison on va l'investir on va mener une campagne pour lui on va gagner ces élections au premier tour d'accord mais ñu gis ni keroog euh, bañ ko daanee moom euh, dafa bind benn tweet nee na teg nañ nee na wante moom xeex bu mu fi mun ti def askan bi moo tax mu def ko euh, nee na wante bu fekkente ne tamit askan bi dañ koo fas ne seetaan euh, moom itamit dina jël lépp teg ko si loxol yi si euh, loxo yàlla mais tey kàddu yooyu noonu est-ce que wane awul ni Ousmane Sonko daa commencé bàyyi loxom dafa sonn daa sonn si xeex bi déedéet Ousmane reculé wul benn yoon dafa wax lu leer mhm. li mu wax olof la mhm. li mu wax dafa leer dafa ni mhm. askan bi laay xeexal mm-hmm. askan bi laa sa xeexal mm-hmm. ful ma jéemale néewal doole askan bi taxaw mm-hmm. tey nag ñoom def nañu seen manigance ba jël ma denc ñaari possibilité moo am soit askan bi nga xam ne dama leen porter seen projet te nar a ànd ak ñoom ñu wóolu ma ñu xeex def seen résistance constitutionnelle ba lii dañ lu ko mooy ñu abdiquer suñu abdiqué bàyyi na kon jeex na bataille bi jeex na. ñu mhm. bi jël na responsabilité. Mhm. bu xeexee ba génnee ko. Mhm. mooy sama yëf bëgguma ko ñàkk. d'accord bu dikkee bàyyi. mooy nangu daal lu màkk def baax na. d'accord su ko defee moom fa mu nekk. ak lu fa mën nekk. mu ni yàlla lii la yàlla dogal alhamdulilah. mais mais mais nag askan bi seetaanu ko. ñu ngi xeex lu nu mën. waaw ñu ngi xeex lu nu mën. waa tey foofu laa bëggoon a woon ñëw euh, parce que moom dañ ne dañuy génn fas yéene wàcc lu benn wala benn dafa bokk ci parti Pastef wàcc sur le terrain am ànd xale yi xeex lan moo waral loolu. mais attendez attendez parce que. Euh, yenn saa yi non non papa parce que parce que fii gis nañ fi euh, ku ci mel ni euh, ñoom ci Fall woote woon nañ fi leve barrière xale yi dem ñoom ñu dem bañ fa doo dooree benn lakkir homogène ñoom ñëpp a tas. waaw kenn gisaatu leen. ñu jàpp xale yi tëj leen ci biir euh, kaso bi te boobu euh, ba léegi xale yi euh, dong ñoom ñoo si ñàkk seeni ay bakkan ñoom la ñuy tëj mais ba tey doo gis benn membre politique bu bokk biir Pastef wala benn leader boo xamante ne ni dina wàcc ànd xale yi nekk si xeex bi ba keroog lu leen yàlla jël tamit ñu jël. très bien. Mm-hmm. lan moo waral loolu. léegi il faut nga may mm-hmm. Mm-hmm. am yoo xam ni. yàqkat di wax bëgg a yàq. je damay commencé ci Ousmane Sonko. Mhm. mori mhm. du génne doomam. Mhm. très bien. moom bàyyi jàmbur la jëkkëru jàmbur la. bàyyi jàmbur yi di nelaw jëkkëru jàmbur yi di nelaw moom nelawul. bu ñuy jàpp comme tey moom la ñu yóbbu kaso. je crois dox na wàllam. askan bi bu ñu génnee di mën te ndax jàpp nañ ko ñu ngi dox seen wàll. Mhm. il n'a pas besoin de venir sortir ànd ak nekk ak wàllam. Mhm. ñaareel ba ñun membre bureau politique man mën naa la jox benn exemple. Mhm. loolu ñuy wax c'est ay wax la. je te donne l'exemple de Mbacké. dans le meeting de Mbacké. ñun magi Pastef. on nous a gazé à Mbacké. Oui. parce qu'on n'a pas voulu laisser les on est avec les gosses soutenir. man amul lu ma déggul mais xale yi askan wi. ñuy jouer seen rôle sur le terrain. les policiers jouer seen rôle. ñu àndandoo dugg terrain ñëpp mënu àndandoo toog di def li ñuy def. kenn ku nekk ak wàllam. te un leader politique. gënul moom muy jóg di jiitu ci dem. gënul rafetlu. mais xale yi xam nañ seen rôle ñu ngi koy joué policiers yi xam nañ seen rôle ñu ngi koy joué. mais déggoo ñu benn xale toog fi di kàttan policiers yi ñaaw làmmiñ rek ñoo koy wax mm-hmm. mais xale yi xam ne ni ils sentent les les policiers de mm-hmm. mm-hmm. mais gis nañu aussi euh, actuellement ci parti Pastef bi euh, parce que euh, Sané moom mi nekk maire parcelle de dañ ko arrêté parce que nee nañu dafa ñu jàppaat aussi tamit may mën a jéy moom mi waa voilà moom mi tamit tamit waa moom di convoqué est-ce que tey nekkul ni comme jàpp nañu Pastef nga waajal sa bopp xam ne euh, amaana di nga am yow tamit sa convocation. waaw xam nga dañ ko commencé par le responsable de mhm. nemmeeku Khalifa euh, mhm. Fadilou mhm. ko yàqu. ça a continué. fa ñuy jëlee xaalis. ñu jël le responsable bu denc. jël le secrétaire général du parti. denc jël euh, le coordonnateur national adjoint du parti des des des jeunes socialistes des jeunes astafurlah des jeunes denc. pour ñoom képp koo xam ne mën na dundal parti bi rek dañ ko war a jàpp. mais li leen jaaxal mooy bi day dund ba léegi. il faut arrêter. par A ou par B qu'est-ce qui se passe à la Patte d'Oie et aux Parcelles Assainies dafa jegante mhm. te bërki démb il paraît que mouvement bi parce que les images ne sont pas mais il paraît que dafa safoon sàpp mhm. même démb sax démb waaw parcelle mhm. dafa safoon sàpp donc par conséquent il faut cueillir Djibril Sané peut-être que c'est lui qui est euh, le maître d'œuvre il faut cueillir Maïmouna Dièye qui est à côté pour voir est que ça va s'apaiser un peu ñun xam nañ ni def lu bon waxuñu lu bon yàquñu dëkk bi saagawunu ŋàññunu mais dëgg dina taxaw ci dëkk bi incha allah ak njub ñoom nag ñu ngi pare ñun ñëpp pare na suñu bëggee nañ jàpp Pastef yëpp bu ñu jàppoon Pastef ba mu yéex jeunesse patriotique jeunesse patriotique dawal Pastef d' accord euh, mais tey est ce que nekkul ni tamit euh, parce que njiitum réew bi dafay woote woon a dialogue ñu gis ne yéen seen njiit moom dafa ne moom moom du ci dem xalifa Sall moom dem na ci Barthélémy Dias tamit dem na ci est-ce que moom tey bu demoon toog ak ak njiitum réew mi lii ne dal nii yëpp nga defoon dina ko doon dal. c'est-à-dire que. ñu trouver terrain d'entente. on parce que Ousmane Sonko moom la muy kaas nee na pour askan bi la. te njiitum réew mi tamit dialogue bi mu fi woote woon mm. euh, dafa ne képp rek euh, koo xamante ne intérêt réew mi daf laa ñor ñoo la ñu toog ñu waxtaanee ko. loolu dialogue et de dialogue politique yeneen yéen fa doon wax yëpp y def ay chemin yu tax ñi fa bokkoon ñëpp kenn ku sa affaire baax na mais Ousmane qui venu ils l'ont isolé mm-hmm. pour que mu bañ a bokk mm-hmm. yàlla mi dara teewul doxal nu tax amatul dara lu ko mën a téye mm-hmm. te problème bi ci nekk mooy waa ji bi mu paree jalo bi ba def li ñuy def yëpp ba pare doyalul parce que la réalité est que bëggul dialogue ñi ki mu bëgg dialogal kenn la je reste ouvert mmh. il nous a lancé un message le président Ousmane Sonko sorti wax moom tam daan ni moi aussi je reste ouvert à un dialogue éventuel Mmh. mais je ne dialoguerai jamais avec un pistolet a la tempe. Mmh. doo jël benn affaire de complot. Mmh. je peux parler dans l'affaire Adji Sarr teg sama kaw. la diffamation de Mame Mbaye Niang yu ñàkk fayda yooyu teg sama kaw. jël barricade sama kër. jàpp sama njaboot yëpp. ba pare ni ma kaay ñu dialoguer. et puis bu ñu doon dialoguer. je me pose des questions peut-être que suma intelligence foofu la on dialoguera sur quoi. Euh, viens je vais tout faire pour nga bokk. mais comme man dootuma bokk. mais garantie ma que ni euh, euh, je serai protégé tous mes gars seront protégés ma famille sera protégée tout le monde sera protégé. Mm. non Ousmane Sonko ne fera jamais de compromis derrière ce peuple-là. Ce qui est certain, mm. c'est que comme il le dit, s'ils ont bien géré, mm. mais il n'y a aucun problème. moom loo xam ni def nañ ko ko personnellement ba ci jël ko abusivement tëj ko baal na leen. mais koo xam ni seq nga ñaar dërëm boo xam ni moo moo ko réew mee ko moom di nga ko yàbbi. Mm-hmm. ça c'est clair net et précis. Ousmane ne négociera pas autre loolu rek kay problème bi. ok mais aussi euh, gis nañ ni euh, démb euh, ci ngoon dañoo taaloon benn bis tata parce que sànq yaa ngi ko doon wax si say biir wax mais comme yegg guñu guñu guñu woon foofu noonu. Mm. looloo tax ñu gis ne nag moom ki nga ki nga xamante ne ni moom mooy ministre bi génn na. Mm. nee na loolu noonu acte de terrorisme la. ak attentat mais tey est-ce que moom war na mën a génn di wax ay attentat ak fii nga xamante ne ni réew mi toll na ko. ministre de l'intérieur. Mm-hmm. Anta Fess darajay yedd ko. Mhm. darajay conseillé ko dama koy wax ni ko muy dal ndànk-ndànk muy def ndànk. Mhm. pour analyser cette situation. Mhm. d'ailleurs chauffeur bi gis naa ay images yi ñu ngi naan chauffeur bi homme de tenue la. ça c'est un. deuxièmement. am na ñu naan fa mu wax ni fa la jóge ak wax fa mu ñëw foofu du terminus cinquante quatre bi. chauffeur bi nee na bi ma taxawee maa ngi leen di seen mm-hmm. tantôt mi ci biir oto bi tantôt mi ci biti mm-hmm. ñu ngi téye ay xeer mm-hmm. mais ki téye tàkk-tàkk bi cocktail molotov bi maa ngi koy seen cocktail molotov da koy taal ba fay téye ko c'est extraordinaire c'est du jamais vu ñu buur lu dóor ko ci biir oto bi mu explosé les clients ne s'affolent pas ils attendent ñoom mi ngi tàkk ñu dem ci tàkk-tàkk bi ils prennent le temps wu jël portable yi jël saag yi. Mhm. après soog ubbi dem. Mhm. bien deux corps calcinés la wax. Mhm. cinq blessés. il n'y a de rescapé. il n'y a pas de témoin si. ce n'est la dame en blanc qui a parlé dans le net. et qui a dit que j'étais dans le bus bi ñu leen seen ñëw ñu wàcc ñun ñëpp. gisuma ku dee gis gisuma ku lakk. xamuñu gisuñu koor bu lakk. gisuñu ku blessé. dégguñu sapeur pompier dégguñu ambulance gisuñu témoin c'est quoi ça qu'est-ce qu'il faut croire ensuite parler euh, qu'est-ce qui s'est passé en France il y a jours benn xale la moom ils ont benn xale rek mhm. plus de mille véhicules mhm. deux mille véhicules mhm. yàq def yëpp est-ce que dégg nga benn personnalité française osé wax ba tudd terrorisme mais ñun suñu autorité dañ koy fooye terrorisme terrorisme terrorisme léegi rek maa ngi gis ndeysaan la réplique de de de du peuple. Mhm. les gosses yore drapeau Sénégal di daw à travers les mhm. ruelles. Mhm. di wax naan duñu terroriste duñu terroriste duñu terroriste. il faut qu'on arrête. il faut qu'on arrête. qu'on joue notre jeu politique. qu'on joue notre jeu je ne sais quoi. mais qu'on arrête. d'aller trop loin d'utiliser certains termes yoo xam ne mën na yàq.

C'est le peuple qui le dit. Fais un sondage dans ce peuple-là. Ils te diront tout. Ils te diront tous que bu Ousmane Sonko bokkul élection du am. Hmm. Euh, am na benn euh, comédien là je ne sais pas nu mu tudd. ki naan xam naa ne xamoon naa ko xamal la nee na élection sans Ousmane Sonko dafa mel ne ceeb bu amul xorom. da koy lekk waaye gëm naan du neex dafa mel ne oto bu amul roue. Hmm. da nga koy taal waaye doo déplacé wu. Hmm. <laughs> tout c'est une façon de parler Ousmane n'a fait que parce que day déglu day xam il est connecté il est branché il ce qui se fait. Mm-hmm. vous imaginez une élection ici au Sénégal sans Ousmane Sonko d'ailleurs bu il est il est éligible. waaw mm-hmm. ah. dissoudre. Mm-hmm. mais si Ousmane Sonko jamais parti avec Pastef il est parti avec une condition une convention